لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk a am bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوغي نواسي سين شين مسلم تيجلن اندي نافل يغا حمني ممني والدف شويرو إن شاء الله بغن يتوبي شاك إن شاء الله جنن لين تقل نافل يغا حمني ممني والدف كون فتفين يعني ويدي أبوني يدي بارتاج الفيديو يبقى بقى wasalaatu wasalaamu ala rasulillah guddi fukkeel ga ku ca julli ñeenti rakka bu ci ne faatiya ak aayatul kursi yi benn yoon ak ina ansalnaahu fukki yoon ak ñaar bala moo jóge fa mu ko doon jullee des na ko jéggal bàkkaaram yu jëkk ak yu mujj dees na ko bindal tuyaabay juróom fukki nit ci way dëggal yi ak tuyaabay juróom ñaar fukki nit ñu dee ci jihaat te bala moo génn àdduna dana mos lu bokk ci meññeti àjjana te dees na ko rammuloo juróom ñaar fukki nit ñoo xam ne sawara yey na leen laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kaana كثيرا وقرن في بيوتكم